waxtaan gëj na am entre ñun ak autorités yi alors que ñun ñoo sàkk woon pour ñu defaral ñu marché Sandaga ba président de la République accepté ko boole ñëw ministre commerce Aliou Sarr ñu liggéey si projet bii ba validé ko en septembre 2018 ba travaux yi waroon commencé décembre 2018 mais malheureusement finalement yëpp taxaw ñun ñu defee ne élection yi la parce que projet bi ñun ñoo si liggéey ak démembrement état yëpp bokk si comité de pilotage bi nga xam ne dix commerçants ñu ngi si woon ak demandement de l'état yëpp ay adjectifs statut groupement des sapeurs-pompiers mais ministère de l'urbanisme ak yooyu yëpp ñu ngi ci woon projet bi nag moom moom lañ validé woon ne moom lañ bëgg mais malheureusement euh, boobu gars yi en août passé gars yi indi beneen projet boo xam ne kenn xamul fu ñu ko liggéeyee ñëw ne moom lañ koy moom lañ euh, mooy nekk projet réhabilitation Mass Sandaga ñu wax leen ne ànduñu si projet boobu parce que ñun si bii lañ liggéey te si ndigalu président lañ koy liggéey te moo wax ñu inclure ñu si si bi si en en amont en avant projet bi kon nag mënuñoo comprendre ngeen dem liggéey si beneen projet indi ko léegi nag après si lu ñu préfet demandé woon nañ si soir si loolu muy waxtaan mais depuis loolu ñu ngi leen di déglu waxtaan amul ba récemment euh, euh, ñu ñu ñoom ñu ne defar nañ benn site de recasement centre de course léegi nag projet mooy ñun ñëw demandé woon à ce que ñu inclure ñu si site de recasement bi si site de euh, si choix site de recasement bi léegi nag inclure ñu si choix si site de recasement bi ñoom ñoo ko def kon ça na dire ne ñun li ñuy laaj mooy que ñu toog si table waxtaan parce que dañoo war a waxtaan parce lu mel ne Sandaga mënoo ko defar sans les acteurs tout ce qui se fait sans toi se fait contre toi te li ñun projet bi suñu waxee dëgg xamatuñ si dara dara xamatuñ ko si xamuñ lan lañ fi nar a def xamuñ ndax dañ koo nar euh, defar pour ñeneen xamuñ dara mais li si leer daal ñun xamatuñ si projet ma Sandaga dara looloo tax nag euh, lii nga xam ne moom lañ dégg si presse bi ñun on est on n'est pas informé on est informé de rien du tout lépp dara yëgatuñ ko si projet bi yëgatuñ dara si projet euh, réhabilitation Mass Sandaga bi lépp ci doole la ak naxaate c'est-à-dire naxaate bi doole ji mooy ñoom ñoo yor doole ji rek naxaate bi aussi mooy di wax ay nit ay gor yoo xamante nii sa waay dañoo dem liggéey ñii gënna gépp dañoo dem liggéey seen alal fanaan ci ay carton ba ñëw jën ba ñëw am seen i am seen i bien nga ñëw di naxanteeg ñoom et ñëw ne fekk projet boo xamante ni projet bu yàgg la nga ñëw rek ne jël ko en cours ñëw ne kii xam naa ne ñii comme gars yi mënul leen dara xaaral ma ñëw bombardé leen rek ñun lool lañ ci gis muy Abdou Karim Fofana moom ministre bi ci boppam moom moo ñëw rek parce que moom moom damaa foog ne bu ñu la falee en tant que ministre jeune da nga war a am courage toog ak ay jeunes comme yow toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom ci seen ñoom liggéey.

ba nga xam ne actuellement pare nañ ba xanaa ñun ñooy ànd ak ministre bi toog si table ne a ah, ñun kal waxtaan nañ bu juboo nii la ñuy def maanaam inclure nañu mais loo xam ne da ñuy wax ñoom ñooy toog yow à travers presse li nga yëg te préfet si boppam moo ñëw ne woon buñ déglu presse buñ déglu dara nañ ko déglu mënuñoo risqué di dem benn site boo xam ne duñ fa mën a gis suñ bopp suñu alal yàqu et puis Sandaga te amul benn base yu légal yu ñu teg suñu loxo amul yenn këyit yu wane ne ëllëg su marché bi pare dinañ fi delsi loolu yëpp dafa nekk ay garanti yoo xam ne waxtaan mënta ñàkk ba mu leer na actuellement ñun ànd nañ ci choix site bi confection nañ ko pour ba mu baax pour ñu mën fa def suñ commerce léegi marché bi wan nañu garanti yu leer ne dañ ko defar defar bi dina débuter jour temps dina terminer jour temps suñ paree ku nekk këyit bi mooy firnde ne suñ paree dinañ ko dinañ la joxat sa cantine parce que am na ay informations yu jub ne xëy na marché bi ñoom jubluwuñ ci daf ko daf ko marché te lool xel tey na si ndegam ñu seek ñun. booy defar booy defaraal ay nit da ngay am respect ci ñoom parce que boo ñëwee fekk ay nit yoo xam ne ay ay ay ay lu baax lañ yor wala lu am njariñ lañ yor nga ñëw yóbbu leen par exemple boo ñëwee fekk ay nit nekk 15 nga ñëw bëgg leen yóbbu 3 au moins euh, euh, nga am matu yow a tant kilifa nga am mat gu toll ni di waxtaan ak ñoom chaque jour. parce que waxtaan bi mun te ñàkk te jubóo du am par A ou B dina am donc dafa waroon waxtaan ak ñun rek di waxtaan ak ñun teg ñu comme boppam mais bu mu teg ni fii fii nit ñi jànguñu rek mu moom moom moo jàng rek toog biroom ak climatiseur am di signer ay papier rek di jox ay préfet yu kenn xamul xam nga préfet bi sax day woo gars yi fii di wax ak ñoom mais li muy wax ak ñoom ak ak ak ak li muy def sa diamétralement opposé